Macky Sall bu bindee constitution ne moom dootul def deuxième man dootul def troisième mandat day verrouillé maa ngi waxtaan ak maître Moussa Diop ma ne ko faudrait d'abord qu'on s'arrête su cette notion de verrouillage lan mooy verrouillé bu fekkee ne chaque fois bu ñu ko verrouillé nit déverrouillé ko il faudrait quand même ñu jàkkaarloog sénégalais yi wax leen dëgg dëgg dëgg lan mooy notion wu verrouillage boobu ñuy wax parce que nag il faut ñu nangu ko mënuñu nekk ci réew moo xam ne ñëpp dañu koy wax la justice est dans les valises de l'exécutif ñi nekk ci bopp réew mi ci exécutif bi président ak ñi ko wër daanaka ñooy xolloo justice bi fi ko neex c'est pourquoi euh, professeur je vais certainement vous surprendre bokkuma ci ñi gëm ne conseil constitutionnel dina wax dëgg parce que man Bougane dama jàpp ne suñu ay conseil constitutionnel mosu ñu ñu wax dëgg li arrangé ki leen jiite li arrangé ki leen jox ay bët dong la ñu mus a def et l' exemple la Côte d'Ivoire yaakaar naa ni yàggul et récemment dama gis ci benn article livre bu Abdoulatif yi muy wax ne bépp juridiction bu nekk Sénégal fépp foo xam ne dafa am kilifa gu fa nekk bu weer deewee gendarme day dawal motoom ñëw jox la enveloppe bu la président di jox ki la abali gët dalay xolloo fi ko neex kon man gëw ma ne conseil constitutionnel moom moo war a wax ndax président dana bokk ou pas parce que de le départ président leeraloon na ko et esprit bi taxoon ñu def référendum bu 2016 ñëpp ñu ngi koy fàttali